Kees debout nag fa laay tëjee président yow laay waxal xaw ma di ma déglu xaw ma doo ma déglu ak lii may wax ngir yàlla ak yonent bi ak ku ko seetaan nga xam ne jote na ci président na nga fexe ba branché ko ca pale ba ñu déglu ko président Kees war na changé Kees war naa changé doomu nit ñu baax yaa ngi fii ñu mel ni ñoom ab lay Dieye ñu mel ni ñoom Habib ñaa ak waa Kees Debout ak ñi nga xam ne dañoo defoon seen mouvement def ay liste parallèle fexeel ba buñ la rëcc buñ la jaxasee kenn woowal ñëpp nga waxtaan ak ñoom jëlal deux semaine nga wax ak ñoom nga xool boo ko defee billahi wal kitaab di nga am li nga bëgg ci dëkk bi soo ko deful xoolal tànk bàyyi woo ñu lay wax diw di amul nit diw di day yow Idrissa Seck yow laay waxal yow su dee soxla nga jógal dugg dëkk bi nga wax ak nit ñi tëju bi doy na yàlla la yàlla may jàmm yàlla oyofal sa yaram ba nga ne kekk yow xam nga bi ngay mën ak bi ngay nekk idi kenn du wax Sénégal nga toog yëngal ñëpp teg seen bët mais jógal yàlla la yàlla jàppale nga am kattan bi nga jógee nga bañ a déglooti kenn lu am am na benn kii bu ñu bu buur buur bu ñu wax kii kii Imam Abdoul Aziz kooku da doon génn mach ma mach euh, Omar bun Xattaab ak ñooñu ni buur yi doon def buur yu baax yi nga xam ne du ñu wut ay garde corps dañu ñëw tëdd ci àll bi di déglu luy xew ci dëkk bi buur da ngay génn te daj kumpa boo dajee kumpa rek am li nga bëgg bu dee maire yi da ngay génn am kumpa nga maire yi nga gis nii li Ablaye Dieye am déglu moom baax vi laay waxee de ñu tëj li Ablaye Dieye am Thierno Alassane Sall am ni ñoom Ousseynou Talla Sylla am ko Benno Bokk Yaakaar am ko xam nga ak yeneen ñi demoon di si ñi am fi deux kii ñi dem ville ville ba laay wax suñu gën ta waxtaan waxtaan même ñii duñ liggéey ndax lu ñëw mën nañ ko bloqué ndax tey boo dajalee lu bennoo am ak Abdoulaye Dieye dong lu ma am ak lu bennoo am tey boo ko dajalee ñoo puñee Talla Sylla ñëwagul Thierno Alassane Sall ñëwagul ñoom jëpp ab dañ xam nga ma la nga xool li xool Habib kand bii tey lu tax mu gañe Malick Kayre xam nga lan xam nga lal la social social la de ko ñam ñëpp lay defal mais foo mu gañe nañu waxtaan te déggoo président bàyyil xel xale yi kees de bu man de ragal naa leen woole nga waxtaan ak ñoom man de boo ma wooyee mën naa leen indi nga waxtaan ak ñoom am na ñoo xam ne nag du ñu bëgg nga toog ak ñoom dañuy ñëw naan non ñooñu duñ dara billahi ñooy dara ndax fu ñu dem jël fukki nit yóbbu bu kanamee dañuy bari mbooloo loolu dong la man dëgg rek laay wax nit ji te nga bàyyi xel yi nga xam ne ñoo ngi ñëw bëgg laa jàppale te kenn mun laa kenn mun laa jote ci yow kees dong ngay gis ay kees dëbu amul benn raison booy dégg feneen dëbu lu dul fii kon nga war a xam ne lépp looy ragal ci sa nguur na commencé kees yal na yàlla def jàmm